jërëjëf mbokki internet yi ñuy bàyyi xel fu waaye mën a ci réew mi ba ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen mbokk yi comme niñ koy defee bés bu jot ñu ngi euh, euh, euh, gàddaay wala géejawaay seet cherche le grand champion gàkku numéro 2 gannaaw bu mu mujjee arène national keroog digganteem ak Pokola Balde boobu ba léegi gisuñu ko dégguñu ko lu ko waral dinañu ko wax incha allah su mu juumul faroon nañ ci weewu béy wala ci weewu nag ñu ni génnoon na réew mi xaw ma nag ba xam loolu lu am la am déet waaye dinañ ci waxtaan incha allah waxtaan ci defet boobu ndax bi mooy première fois ñu seeq jotaay bi waxtaan tamit ci euh, làmb yi nga xam ni euh, làmb jóge na ko combat yi nga xam ne làmb jóge na ko bokk na ci le premier janvier ak làmb yi nga xam ni jëm na ko ak ci adve ay adversaire am ndax ñu ngi ko koy proposé mu déet ñu nuyu ko bu baax bàyyi ko mu nuyu mbokki internet. waaw maa lay fay Ameth di nuyu waa Zarak di nuyu internet yi di nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu monde entier di nuyu géejuwaay gi nga xam ne fii lañ nekk fii lañ dëkk di nuyu waa Sénégal gi yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu képp koo xam ne mi ngi yaa ngi bëggee Gackou rek maa lay nuyu baax baax baax baax mhm. di nuyu waa école bi nga yëpp ok loolu am na solo euh, keroog bi nga jëlee sa defet di ba léegi lan la gëj a gis lan moo waral loolu ah waa ba mënoo mhm. bëre làmb ji demee noonu ñëpp xam ñëpp gis ni laa muy demee ba pare ngay nekk di wax looy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. da ngay làqatu rek nekk sa bopp entraîné xam nga préparé mm-hmm. waat. waaw. dafa mel ni làmb ji li mu demee daf la dafa xaw a bett wala daf la daf la xaw a metti. daf ma metti kay waaw daf ma metti bu baax sax. daf ma metti kay. waaw lu warul metti la ki la daan moo lu warul daan wala lan la. non ku nekk làmb mën nga ku nekk mën nga daan sa morom làmb moom ñëpp. ku ne xam na ni lamb moom noonu lay demee. Mhm. mais nag lamb jooju moom waru waruma waru ma si woon daanu quoi. waru ci woon daanu ok nga daanu ki nga daanu ci dafa la am lu mu la yàqal ci sa carrière. non yàq na yàqul lamb moom daanu ak daanu daan ñoo fi nekk. Mhm. lamb ñëpp ñu fi nekk ñëpp bëri nañ daanu. Mhm. comme tey ñun amuñu dara lu ñuy regretter amuñu dara lu ñu kii dañuy defarwaat rek. nekk ak suñu entraînement. ok waaw ah. boobaak léegi da nga génnoon réew mi yaakaar naa. waaw man man man ba ma 2017 laa commencé dem France. ok. Mhm. bu may dem du sax comme gars yi ni ñu def nii di voyager di woo site internet yeeg di ñëw di woo site mm-hmm. internet ñuy kii ñëpp di ko yëg. Mm-hmm. mosuma ko def. Mm-hmm. moo tax ñu bëri sax xamuñu ni damay dem ak yooyu fa mu voyage mais loolu loolu moom ku su ne làmb moom yaakaar naa ni. Euh, ñi si nekk te am si xaw si am tour ñëpp. yaakaar naa bu ñu demee def démarche dinañ mën a dinañ mën a voyager partout dans le monde. Mm-hmm, mm-hmm. loolu moom jafewuñu ko ok bi nga bëree ñaata jours nga toll soog a soog ñaata jours nga toog soog a dem. trois jours rek. trois jours nga soog toog a dem fan nga demoon Espagne. non France biir bëroo tase nañ fa sax. Mm. waaw. lu war waroon dem sa dem. lii laa nekkoon. waaw non non du dama dama dama préparé dama pare rek dem foofu def fa une semaine ñëwaat. Mm-hmm. waaw du dara. nekk demuñu woon pour préparer demuñu woon pour entraîner demuñu woon entraîner ma fa def dem fa dara. Mhm. dama demoon rek dallu ñëwaat xam nga di di di remercier tamit ñi nga xam ne dalaloon nañ ma fa muy Seynabou euh, bu Meng. Mhm. Rakh Omar Baas ak jëkkëram aliw di leen remercier bu baax a baax gis nañ taxawaay bi. Mhm. xam nga dem nañ fa ñu taxawuñu jàppale ñu xam nga dalal ñu gane lañu. waaw. jiñu jiñu ñu fa sàcc parfum nag kenn jiñu ñu fa. <laughs> loolu am na solo mënoon nañ ñoo jiñ ay sàcc <laughs> uh-huh. loolu na solo euh, yaa fa yóbbuwoon sa bopp wala dana la faa yóbbuwoon. kenn yóbbu ma maa yóbbu sama bopp. Hmm. maa bëri ba pare am na moyen nu boppam. Ah, kon man bu fekkee. ku am 16 hmm. combats boo munul boo munul dagg ay billets d'avion kon da ngay bàyyi bëri. Ah, man waaw mais am na ñu fi am 20 combats sax mënuñoo dem. waaw ah, non non man maam maa ngi sant yàlla si côté boobu. waaw mhm. bëriwuñ ay ay ay cent ay cent mille ak ay million la ñuy bëri mhm. kon war nañoo mën a dagal suñu bopp bi dem dem ñëwaat ay millions la ñuy bëri quoi mhm. ñu ngi nga dagal sa foo foo daloon ban ban kii lil lil laa nekkoon moo moo tax man la man a giri dese nañ fa ah ok waaw lil laa nekkoon ok waaw nga def fa ñaata jour sept jours rek laa fa def sept jours ah loolu <laughs> loolu yéeme na si koo xam ne xëy na bëgg naa dem sax toog fa ay at ay mois yow nga yow nga dem fa rek def xëy na noppal la woon xëy na. déggoo ma ne la déggoo ma ne man déggoo ma ne la 2017 ba léegi maa ngi fay dem. ah kon mën nga ko daal. waaw waaw. Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. naa fa ay xarit bëri naa fa ay même Espagne Espagne ci ku ma xam-xam ni man Espagne tamit bëri naa fa ay nit ñoo xam ne fa laay fa laay dem sa laa man Espagne dem naa fa quatre fois France trois fois maanaam du nekkul loo xam ne lu bees la quoi mais ñun hmm. duñ ko fësal ndax nekkuñ nekkul loo xam ne dañ koy dañ koy ndamoo wala dara nekkul lu lu extraordinaire su ñun quoi. Hmm. xam nga di si sant tamit Omar Baas. Hmm. moom moo tax ma gis yoon bi moom moo moom moo ma njëkk a utal visa. waaw. kër gii ñu nekk nii këram la. sama waay la sama xarit la yàgg nañ ba ñuy ànd boobu dara ba dara nekkul dara la. waaw actuellement sax mi ngi France moom. moog jabaram ak doomam maa ngi koy nuyu bu baax baax a baax. ok waaw. Mhm. Euh, bis mënul ñëw nga dem dem fa toog fa làmb metti nga dem toog fa yàgg fa liggéey fa wala yu mel noonu. non xam nga tey ñun ñun moom décision bi décision boo xam ne euh, décision bu ñu jël suñu àdduna. Mhm. dinañ si waxtaan ak ay kilifa waaye buñ ko waree jël dinañ ko jël. Mhm. ndax ndax tey nekkatuñu ay xale quoi. on est majeur et vacciné xam nañ li ñuy def ak li ñuy bàyyi. waaw décision bu ñu war a jël suñu àdduna rek après dinañ ko jël non dina bu waree bu bu jotee rek dinañ ko jël du après sax. ok waaw. Mhm. nga toog fi bëgg làmb la wala yaakaar làmb la wala lan waaye ñun ñuy ñun ñuy ay champion. yaakaar làmb làmb yaakaar ñu ñuy bëre di daan. wala am cër ci làmb am cër ci làmb. ok dañoo am cër ci làmb. Mhm. ñu bëri da ngay da xam nga xam nga tey. Mhm. ñun. xay na ba ñu nekkee dañoo teel a dugg ci làmb bi ñu nekkee xale ba léegi ñoo ci làmb. Mm-hmm. xam nga am na ñoo xam ne. Mm-hmm. tey nekk nañ ci làmb te amuñu loo xam ne am nañ ko ci ñun. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ñun ñoo leen jiitu ci làmb. am nañ ah. lu ñu amul. mais bëri na ñoo xam ne ñoom ñoo ma jiitu ci làmb te am naa lu ñu amul si làmb. ok. àdduna noonu lay doxee ku nekk ak sa cër ku nekk ak sa wàll ku nekk ak sa destin ku nekk ak li nga war a am. yàlla mooy séddale. àdduna noonu lay doxee tey jii nii bu ma gisoon bu ma bu ma leeroon ni tey jii nii aw ma aw ma place si làmb ji. Mhm. du ma dem Europe di ñëwaat dama fay dem toog liggéey. waaw mhm. xam nga. Mhm. te man bu ma nee bu fekkoon ne bu fekkoon leer na ma ni sax bu fekkoon ne leer na ma ni bu ma ñëwee bu ma ñibbisee du ma delluwaat sax kon du ma ñibbisi. xam naa ni dëkk bi metti na. làmb ji yombul. mais ñun ay góor yàlla lañ dañuy ñafe suñu live. Mm-hmm. même bu dul woon làmb ji sax mën nañoo toog ci dëkk bi fii liggéey fi tekkee fi. Mm-hmm. dañoo gëm suñu réew gëm suñu bopp. Mm-hmm. xam nga li ma la wax. fois nag di nga dégg ay wax ku nekk naan ay noo da waroon toog ñii naan ay noo danga nga waroon def nii ñii naan ay. toog fa ba si kanam ak ñun li ñu war a def. xëy na tey am na ñoo xam ne dañuy am yéene ci yow. am na ñoo xam ne dañ lay yërëm. Mm-hmm. dañ naan kii kat xam nga coono yi làmb dafa metti affaire yooyu noonu demal fee nga toog noppalu. xam nga. Mm-hmm. xam nga ñoom tamit dañuy gise dañuy gisee nit làmb dafa metti affaire yooyu yooyu rek la ñuy gis. Mm-hmm. mais tamit ñun mais ñun gisuñu loolu. ñun dañoo gis ni ñun ay góor yàlla lañ. te dañoo ñafe ba toll fi ñu toll. te li ñu indi fii mën nañoo yóbbu fi kaw a kaw. incha allah te dinañ fa dem. incha allah waaw loolu am na solo nga jógee fa ndax promoteur ñu ngi lay woo di la proposer ay adversaire waaw promoteur ñu ngi woote. Mhm. mais jubóoguñu. jubóogu leen ci adversaire la ci xaalis wala. jubóoguñ ci adversaire. ok. kon du problème mu cachet. non du problème mu cachet wax waxaale waxaale gu ma waxaale gu ma cachet sax. Mhm. mais man bala maa waxaale cachet. adversaire bi daf may daf may kii ba pare. doy daf may doy ba pare. ok ma waxaale cachet. Mhm. kon ah, adversaire bala ñoo waxaale kese moom bu ma adversaire bi kiiwul du ma la wax du ma la laaj sax bu man aw ma sama ménagère Mara Ndiaye xam na li may wax. Mhm. promoteur yi bëri ñu may seedaan. Mhm. man doo ma proposé combat ma naan lay laaj ay ma bañ komba bi bugguma combat bi di la di la naan la ay fay ma 30 millions te fay xam naa ni mënoo maa fay 30 millions. Mhm, xam nga li la dama naan la bugguma kooku. wala bëri ma kii. xam nga la mu leer man noonu lay doxee Matar Ndiaye xam bu ma arrangé damay jël. Mm-hmm. booy ñi man ñi ma bëreel ñii ñëpp sama génération lañ ñu si bëri maa su làmb waaw nga. Mm-hmm. bu ma bu ma nangoo dafa jaaru bon bu jaaroo rek damay bëri. Mm-hmm. mais ku ma wax combat bu jaaduwul moom la bëree maa kooku. yi lay wax dafa jaaduwul da nga jàpp ni yaa leen raw. ñan la ñan ak ñan la. non tur sax jarul mooy tudd seen tur. jaru ko. mais ci ban catégorie la ne ci làmb ñoom. non suñ catégorie yëpp ñun catégorie yëpp. Mhm. xam nga même même génération la rek même génération la rek. ok waaw. mais da nga jàpp ni kon yaa ko raw. man damaa man damaa tollatul foo xam ne. Uh-huh. damay gestu di bëre ku nekk ci suuf. Mhm. tollatuma foofu. damay bëre koo xam ne ñoo tolloo ñoo tolloo niveau. Mhm. wala koo xam ne xam naa ni kii am na moom moo ma jiitu si làmb wala am na lu ma rawee tuuti ma bëre moom. Mhm. ok mais tollatuma fu may gëstoo di bëre. ok loolu am na solo Kaw Gourdin ñu ñaar làmb la. Kaw Gourdin bëgguma ko. lu waral loolu. dañ ko daan. ah daan na fi ay champion. avant muy daanu avant muy daanu dañoo dox suñu komba mu bañ mu bañ. Ah. kon bëggoo bëre moom jamono ji non malgré man si defee laa jóge mu jógee si defet sax mais bërëm ak moom. Hmm. ok euh, Brise de Mer numéro 2 donte ko am na combat mais ñaar combat la woon ah. non Brise de am na komba am na combat di ko dem Petit waaw. ba muy nekk combat boobu daano daanoogul de. boobu daanoogul. waaw ah. ok. waa ci ñaan bari nga fi adversaire ah. bari naa fi adversaire waaw. <laughs> naa fi adversaire adversaire adversaire yi ñoom xam nañ seen bopp. Mhm. promoteurs yi xam nañ adversaire yi xam nañ ñi war a bëre. mais nag du ma tudd turu kenn duma laaj kenn man tollatuma fu may laajee benn mbër benn. Mhm. promoteur yi. waaw suñ ma woowee xam nga li la ni ma diw ak diw ak diw. Mhm. wala ñu ne ma diw mii ma ma ma wala ñu ne ma ñan nga bëgg a bëreel man la diw ak diw ak diw. mais site internet bi ma toog naan la naan naan lañ ma jox diw non non du ma ko def. amuñu am ñoom amuñu maaxaama boobu sax amuñu kii boobu sax dayo boobu. ok man tollatuma fu ma naan mbër kaa ñu wala ma naan mbër ma lay ma sunu dëkk ni suñu combat dafa rek yooyu noonu du ko def gis may dëkkante ci làmb mhm, mhm. musu ma gis ma wàcc ci enceinte di dëkkante musul am man duma ma dëkkante ci làmb te ma ngi bëre ñi mhm. ñi ma làmb booleel xam nañ len te promoteur ku bëgg sama combat xam nga fooy jaar ok ah. bulal ñoo ñëpp ay champion lañ. waaw waaw waaw champion la. waaw est-ce que lamb ju jaadul ci yéen ñaar. Iya non yéen ñaar ñëpp ci pokola ngeen mujjee. waaw loolu lépp mënul ne. man daal maa ngi fi pour mbër yëpp. mais doo ko bañ daal doo ko bañ. non man ba xoolal man man nag kaay ma xamal la man bañuma benn mbër. xam nga kan laa kan laa kan laa kan laa dul kan laa dul bëreel. Mhm. du question bañ mais da ngay xool li nga xam ne. waaw yow mooy sa avancement li nga xam ne mooy sa njëriñ. mais doo bëre chaque jour saa yoo saa saa yoo bëre di gestu di gestu di gestu di gestu doo avancé fan nga jëm. ok doo dem doo dem ci làmb da ngay sonal sa bopp balaa càgg nga dem fenn nga dem voyage sax dem toog fu moo Modou. Mhm. am na ñoo xam ne bu ma leen naree jël ma bàyyi làmb. mais bu laal bokku ci ah wala. bu laal jël ko gestu la wala du. gestu non gestu la kay. la waaw. Ah. lum lum nekkee gestu. non bu laal champion la. waaw bu laal dama dama ko dama ko dama ko respecté. bu laal champion la nit ku baax la. Mhm. mais nag dama ni man ñi ma bëgg a bëreel yi nii nii nii mhm. nekkul bu laal. ok waaw. Mhm. kéwal. waaw kéwal combat la. laay goote. laay goote non ah <laughs> lu waral ba nga bañ laay goote. <laughs> dama ko bëggul rek mais combat ok combat la mënu ma koo bañ mais bëggu mais bëréew ma moom. waaw. Hmm. Ah. <laughs> loolu am na solo. kéwal waaw combat koo fi lim nii koo ma ne la combat Jacob Baldé. combat la. ak Jacob. koo fi lim. combat <laughs> <laughs> la de. waaw combat la dégg la combat mhm. koo fi lim ni ni te te te bugguma bëre ak moom dama naan la. bugguma. ok la du combat. ok daal fi mu ne baax na. waaw ah. Jacob Baldé baax na. waaw ah. Laye baaxul. Euh, ak kanaat bu laal baaxul. Laye Gothé sax baax na. <laughs> Laye Gothé. Ah. waaw yow Laye Gothé la parce que moom dafa def lii tax mu mën a bëreeg yow xëy na. waaw <laughs> ak ñanaat <laughs> xam nga say adversaire ah. xam naa leen kay. waaw dama mais mais mais si ñooñu kenn woogu la ci si ñooñu. di la di la wax ñooñu. non ñi ma fi limal nii moom kenn woogu ma ci ñooñu. ok. Mhm. Mhm. kenn wooguma si ñooñu. ok mais jàpp nga ni fii saison bi mën nga cee. mais ñi may woo ñi may woo promoteur yi may woo xam nañ xam nañ xam nañ ñi ma bëgg a bëreel. Mhm. xam nañ ñi ma bëggut bëreel. ok ndax maa ngi déggante ak promoteur. waaw mhm. ah. ok euh, kon lu ñàkk tan fii ak saison bii nga bëri ci ñaar ah. ba ñetti combat. ça dépend rek. Euh, xam nga làmb ji moo a bëri ngeen doy waar uh-huh. ah. Mm-hmm. booy Dakar laa la bëggoon wax bëri ngeen. que moom tamit ah? dafa nekk ci dafa nekk ci làmb ba pare ah? waaw mm-hmm. Mm-hmm. am na solo euh, làmb ji ñu mujj keroog le premier janvier noo ko noo ko gisee jeexantal ki waaw làmb jooju neex na. neex na trop. ñaari champion ñoo doon bëre. Boy Niang champion la. Modou Lo moom super champion. bëri nañ xeex nañ def nañ li ñu war a def lépp Boy Niang def na li mu war a def lépp. Mhm. xam nga euh, làmb moo demee noonu. Mhm. ñëw na bëri na xeex na ñàq na kon day defarwaat rek. Mhm. waaw. ok. Euh, Modou Lo moom. waaw. kenn kenn du ko wax dara dañ koy dañ dañ dañ koy féliciter rek xam nga ndax moom ku ne xam na ni moom champion la champion incontestable mooy Modou Lo le roi incontestable mooy Modou Lo. Mhm. fi mu nii moom kenn mënu ko contester. Mhm. waaw. Mhm. ban jumte la la la Boñang defoon keroog. jumte man daal gisuma juum ku ku juumul doo daanu. waaw waaw juum moom def na ko mais gisuma juum yooyu yenn juum yi day moom jour boobu Modou moo ko mën. ok waaw. mën nañoo bëriwaat moom mu daan Modou mais jour boobu noonu noon noonu Modou Lo moo ko mën. ci wàllu xeex juumu ci. non non gisuma ni xeex jum na si xeex bi de. ba ci bëre bi waaw. bëre bi daal xanaa li naan li li mu yàgg si tànk bi nga mën a wax. Mhm. waaw ndax bi mu songee xaw na rëpp bu bàyyi woon tànk bi jéem a jug sax mën na rëcc. Mhm. mais dafa téye tànk bi yàgg fa léegi sëy si la ko Modou kiiwee. waaw mhm. euh, Modou Modou léegi noo ko gisee. moom laa la wax Modou la. est que Modou moom mënu ko wax dara. waaw xam nga ngay wax. Uh-huh. Modou moom da nga koy ñaanal rek. fi mu ne nii moom. Mhm. Modou moom c'est le maire. pour l'instant c'est est-ce que amul lum jàngal mbëri. lu bari. waaw jàngal na mbëri lu bare bare bare bare. Modou jàngal na mbëri ni làmb. Mhm. entraînement la. Mhm. jàngal na mbëri ni làmb sérieux la. jàngal na mbëri ni làmb fit la. ak fulla ak fayda. jàngal na mbëri lu bari. waaw. naan ay du ñaanluwul ñaanlu na de. day ñaan lu kenn ëpp ko ñaan. <laughs> moom Modou Lo kenn ëpp ko si ñaan. xanaa ñaan ngi mm. du ñëw ñaan ngi du ko du ñaan dadul ñaan dadul yu bari. ah ok jàngalaat na mbëri loolu. Mhm. jàngalaat na mbëri ni ñaan. du taxaay bu bari. Mhm. maanaam Modou li mu indi lii lu bees tàq loo xam ne jàngal na mbëri lu bare bare bare bare bare bare jàpp jàpp ngeen ni mbër léegi lamb sport la sport la sport la waaw sport bi dafa ànd ak musique ok Modou Lo day musique mais dama ne la mhm. dafa jàngal mbëri ni làmb musique du taqaay yu bare ah maanaam liy daan mbëri mhm. liy daan mbër ñëwul ci làmb ja ñëwul ci làmb ja mhm. di jàngal Modou fi mu nii day jàngal gaay de mm. <laughs> waaw day jàngal mbëri de sama saar gépp mooru jàngal nañu mhm. mbër yu mag yeeg mbër yu ndaw yeeg ñu si digg beeg ñëpp mooru jàngal nañ jàngal nañ lu bare bare bare bare mhm. waaw de xanaa boo ñëw doo takku léegi ah non non man du ma ni du ma takku de mais taxaay yu bari moom góobu ne dinaa ko def. mais dinaa man man man aw ma lu muy décidé man dañ lay indi ma defal nii. Mhm. defal nii taxal lii naanal lii sangool lii yooyu loolu la loolu la ñuy def loo. waaw diggante moom Balla mais mais du ma tax. Mhm. waaw mais taxaw yu bëri moom moo war na leen moom taxaw yu bëri amul njariñ. amul njariñ waaw diggante moom Balla safeeti na. ah waaw safeeti na ñoom ñëpp ñu ay ay adversaire lañ. ok mais làmb ji daal yaakaar naa man bu ma doon bu doon tëgg. bu ma nekkoon promoteur yi tëgg. Mhm. Tapha Tine Modou laay tëgg. Tapha Tine Modou Lo. ok rëg rëg booy ñaa. Mhm. Balla Gaye Siteu. Balla Gaye Siteu. Sa kii moom taxaw na Eumeu Sène. Eumeu Sène waaw Sa Thiès Eumeu taxaw na. Mhm. loolu mooy combat yi. ok Modou Lo nga nga koy jox Tapha Tine. Reug Reug Modou Lo Tapha Tine Reug Reug Boy ñoo fi taxawagul Sa Thiès moog Eumeu taxaw na. Mhm. loolu mooy làmb yi. mais na jël Quench. Franc Quench waaw. am nañu d'accord ci Balla Gaye Siteu bi ah. parce que dañu gis ne Siteu xëy na prouvé gul yenn prouvé. na Siteu Siteu Siteu mbooloo moo indi fi mu nekk ba pare. Mhm. mu ñëw teg fulla ak faydaam Siteu bu demee ba am am am am am nil ci Lac ñu kase verdict bi. Mhm. Mhm. bu dee bu fekkee la de Guiers daan na ko sax. ah bu bëreeg la de Guiers te jël amul rek mu daana ko par avertissement rek. Siteu am na mérite. ok ndax Lac de champion bu mag la. la Lac de daa am doole. daa woon bëre. daa am ginnaaw. Mhm. Siteu fulla fulla ak fayda ak jom moo ko indi fii mu nekk. Mhm. Mhm. Balla Gaye moo koy may chance Balla Gaye amul ku muy Balla Gaye amul lu muy defeti ci làmb. dëgg la. maanaam retour de carrière la nekk ku dem ba nekk roi des arènes ne egg nga au sommet. léegi boo demee ba sës nan ngay def da ngay dëpp. da ngay dëpp Balla Gaye si si retour retour de carrière am la nekk. comme ni Modou loo nekk si retour de carrière dem ba nekk roi des arènes di dëpp. Balla si loolu la nekk. waaw. Mm-hmm. yaa ngi rêvé ngir bëreeg ñu mel noonu Modou Lo. ñoom ñëpp xam naa ne non non moom xam naa ne du ma moom ndax léegi mu bàyyi moo Lo est-ce que sax fi mu nii. <laughs> de loolu moom nee naa bàyyi. léegi non ragal naa ah, ni dina bëriwaat de. ah am na yi ñu fi nekk. man daal maa fi te incha allah. Mm-hmm. ñi fi ñifi fi ñi fi ñi fi ñi fi mën buñ demee ba ci kaw dinaa bëri ñoom. Mm-hmm. te champion champion yi fi mën dina bëri ñom inshallah allah am na làmb ju waram tamit suba xéru ngor gaaroo gar ah, lu ñak ah. <laughs> ko ku fa daan tamit war nga fa mëna am adversaire. non non ah way lu may doy ñooñu. ah xéru ngor gaaroo gar man dal ga ga ko xana nga ngaa France rek ñu am lu la dey. non dey ñu ma dara. mais yow yow yow yow xam nga ñooñu ay champion yow yow moo man boy Dakar mi nga xam man maa ko daan sax soxla wul ñooñu. ok Petit Niang mi nga xam ne maa ko soxla wul ñooñu. yow da ngaa defe man ay ay ay ay njalaxaan laa daan xanaa. déedéet man kay xam naa ne nga daan bu baax a baax. ku am 16 combats am 3 défaites nga ma ay uh-huh, uh-huh. ay kii gaaro gaara ki ay kii ñooy dama leen xam. waaye yow. <laughs> yow ku daan ay ndongolo daan ay zator daan ay daan ay tonnerre de daan ay. Potignan Potignan bëreeg caatu Yoff bëreeg booy daan kii ñi ma daan laa la xaw ne ñi ma daan de. Ah. kii nu tudd. booy Dakar mii. booy Dakar bëggul ñooñu booy Dakar bëggul ñooñu. <laughs> ok <laughs> eh, Guiro Seras. waaw Guiro champion la. waaw. Guiro mi ngi def ay preuve am. ñaar day ma ni moom lamb boole nee na. waaw solo bëgg naa teew ngay tàggatoo. di di sant ñi ñi nga xam ne dañ jàppale su amee combat su mhm. mel ne Fara Ndaw kooku. Mhm. may taxaw si côté bu nekk. Mhm. farandaw mention spéciale maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax sama grand la sama lépp la daf may taxaw ci côté bu nekk bu combat ak mm-hmm. nga xam nga xam nga xam nga xam nga loolu dafa tey jii nii am na ñoo xam ne bu combat ba combat lañ lay jàppale mais am na ñoo xam ne dañ lay jàppale te yàlla tax nga am mm-hmm. combat nga amul combat dañ lay jàppale si loo nekk dañ si nekk mm-hmm. xam nga maa ngi sant ñëpp nag ñi xam ne su ma amee combat dañuy taxaw jàpp si xam nga ku si mel ne Euh, Alaaji Fall borom mouvement Sen of Time. Mhm. ku si mel ni Modou Gueye. Mhm. ku si mel ne Malick Gakou xam nga. Mhm. ku si mel ne ñi nga xam ne dañ si jàpp ñëpp. maa ngi leen da ngay juum des fois da ngay da ngay kii quoi doo matal. maa ngi sant ñëpp ñi nga xam ne dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax maa leen di sant bu baax a baax a baax. Père Baye Fall ak Père euh, Laye Père Laye Baye Fall Onda maa ngi leen di sant dañ ciy jàpp bu baax maa leen sant bu baax a baax. Mhm. di sant waa waay waa Pikine sama waa kër papa. Mhm. di sant ñi nga xam ne ñëpp dañuy bëggee gàkku. Mhm. fuñ fu foo mën nekk Sénégal maa lay bëggee bu baax a baax a baax di sant ñëpp ñi nga xam ne su ma amee combat dañ si daj ay coono ku mel na ñoom Baye Jibi papa sama rakk xam nga ñoom Pape Sow ñoom Tafa. xam nga ñi nga xam ne duñ nelaw du duñ duñ maanaam dañuy sonn fu ne lañuy ñuy dugg. Mhm. Siré Bari maa koy sant bu baax a baax a baax di sant ñi nga xam ne ñëpp sama yaay sama yaay njoogu di sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ne su ma amee combat dañ ciy taxaw dañ ciy jàpp. da ci mhm. ay coono maa leen sant bu baax di leen sant yéen tamit. waaw Amet ak sa mhm. caméraman bi yooyu waa Zarak. Mhm. vision yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax. Mhm. di leen bëggee di leen wax seen seen liggéey rafet na quoi. waaw di sant tamit Pape Mama Fall suñu président. Pape Mama Pape Mama day daj maanaam nekkatul sax suñu e président école école Balla Gaye moom président Guédiawaye la. ndax mbëri Guédiawaye yëpp lay jàppale. ku si am combat da ngeen koy gis mu ñëw taxaw jàpp si. kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal lu mu mën ren yàlla lu yàlla mën lu ko ëpp déwén. yàlla may gudd fan ak weer ak njabootam gi yëpp. Mhm. waaw ñoo ngi sant ñëpp. jaajëf kontaan nañ gaan